wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi alazim ñu ngi bëgg ànd ak yéen ngir tënk xutbatul jumaati ajjumaay tey jile xutba gi mi ngi aju woon ci ahamiyatu salaa wa ahamiyatu iqamatiha fil masajidi am gi julli am solo ak solo gu mag gi nekk ci julli mbooloo rawatina jullee ko ci jàkka yonentu sallallahu alayhi wa dina wax ci am soloog julli xadis joo xam ne jaabir ibnu abdullahi moo ko jëlee ci moom imaam muslim record ko ci saxiixam yonentu ne bayna rajuli wa bayna shirki wal kufri tarku salaati li dox ci diggante nit ki ak bokkaale kéeféer mooy bàyyi julli maanaam daal ku bàyyi julli soo ko yëgeeg soo ko yëgut ba nga diine boroom xam-xam yi danañ leeral ne ku bàyyi julli ànd ak gëm ne julli lu war la ñu ne kooku mooy gu réy réy la def waaye nag jullit la ki ko bàyyi nag gëm ne warut ko gëm ne julli du farata ci moom walla du farata ci diine kooku xéeféer la am na nag groupe ci boroom xam-xam yi ñoom dañoo jël xadis bi ci zaahiram ne képp koo xam ne bàyyi nga julli rekk yéeféer nga ndax yonent bi dafa ne bay bayna rajuli wa na shirki wal kufri tarku salaati julli kon am na solo ba tax ñu war koo def waaye defin wayit lu am solo la yàlla du wax ci alquran mukki julli leen taxawal leen julli rekk lay wax te buy tagg it du tagg ñuy julli ñi daa taxawal julli ñii taxawal julli rek lay tagg alladina yuqimuuna salaa wa aqimu salaa ndax bépp aji taxawal julli aji julli la waaye duwul ne képp kuy julli rek taxawal na julli gisuloo yàlla ne fa waylu lil musallin mbugal ñeel na way julli ya alladina hum an salaatihim saahun maanaa jëmm yaay julli de waaye xol ya julliwuñ almusalluuna kathir walmuqimuuna qalil ñuy bari ñu bari ñooy sëgg ak siggi waaye ñuy julli dëgg-dëgg ñu tuuti lañu yonentu dana wax sallallahu alayhi wa ci xadis joo xam ne abu daawuda ak nasaa yu ñoo ko génnee ne am na ci yéen kuy julli bu jullee ba noppi sulus ba rekk buñ xaajee julli gi ñetti xaaj benn xaaj ba la ci am ni dana julli ba ci bam yeggal rubo ba lay am ñeenteelu xaaj buñ xaaja julli ga ñeenti xaaj benn ba buñ xaaja julli ga juróomi xaaj benn ba buñ xaaja julli gi juróom benn xaaj benn ba wax na ko ba buñ xaajee julli gi fukki xaaj benn ba la cay am mu ne daal kenn ci yéen du am ci julleem lu dul lam xellu mooy lam teewlu moo tax julli am na solo waaye julliin moo gën a amati solo def ko ca waxtu waaye fexe ba boo koy defit nga teew teew gu mat sëkk kemtalaay li nga mën fattaqullaha mastataatum to be present in prayer ndax yonentu sallallahu alayhi wa wax na ne awalu ma yuxaasabu bihi l abdu yowma alqiyaamati solaatu jaam bi buy dajeeg boromam moom yowma alqiyaamati li ñuy njëkk xool mooy téere jëfi julleem yonentu nee na su fekkee ne def na ko nam waree nee na regleem dafay yomb su fekkee ne julli ya dafa manqué nee na sama borom wax malaaka xool leen sama jaam bi ndax am na dara ci naafila ci julli su fekkee ne daa nga naafila yow jaam bi mankile yéen ñiy julli yéen ñiy déglu yàlla bu ci kenn mankile ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa bu fekkee ki mankele daa na naafila sama borom ne jël leen yoolu naafile yi ngeen mottalee ko li manqué ci farata yi looloo tax julli yi ñoo julli balaa ñoo julli farata ak ya ca topp am solo yonentu sallallahu alayhi wa dana wax ne ku jullil yàlla fukki rakkaay fukki rakkaak ñaar ci bés bi bu tabaxal la raxal janna ana loolu mooy nga julli ñeenti rakka balaa tisbaar ñaari rakka gannaaw tisbaar ñaari ràkk gannaaw timis ñaari rakka gannaaw gee ak ñaari ràkk balaa ngay julli farataay fajar te moom la wolof yi di wax suba ñaari ràkk ay fajar yooyu yonentu wax ne moo ko gënal àdduna ak li ci biiram sunna raatiba la sunna yooyu lañuy ñuy tuddee sunan ar képp koo xam ne foo ko fekk mi ngi sonnee sunna xamal ne du sàggane farata mukk koo gis muy xoor xooru gàttangal xamal na du sàggane weeru koor koo xam ne du sàggane julli naafile balaa tabaarakallaahu balaa moo julli du sàggane julli yooru yoor du sàggane julli guddi ak safa ak wittar ak ya ci aju kooku du sàggane farata waaye koo fekk mu sàggane farata nag fa huwa li sunnati atiyaau sunna taxut ñuy wax moo tax toppatoo sunna yi dafay ñàkk farata yi soo ne damay julli sama farata rekk dem boo mooy tuxul nga sàgganee sunna yal nañ ci yàlla boole musal julli juróom yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa nee na mooy lii fóot jaam bi bam set wëcc wëcc wëcc mu joxe misaal ne bu fekkoon ne kenn ci yéen dafa am dex ci buntu këram bés bu ne mu dugg ca juróomi yoon sangu ca ndax dana deseeti ci tilim dara ñu ne déedéet mu ne naka noonu julli juróom julli mbokk yi mooy tax jaam bi am accès ci présence su boroomam subhanahu wa taala góor ga Bakr Bakr ibn Abdillah dafa ne yaa ibna Aadam yaa ibna Aadam ay yow doomu aadama bi ida chita an tadxula ala mawlaaka bi gayri idnin su fekkee bëgg nga dugg ci sa xadaraay borom te soxlawuloo benn protocole benn permission benn audience buñ lay may wa tukallimahu bila turjumaan bu fekkee bëgg nga wax ak sa borom te doo am kenn ku dox ci seen diggante di nekk seen interprète ndax dégguloo làkku asamaan soxlawuloo ko soxlawoo tamit ku la jottali ndax asamaan a lay dégg soxlawoo tamit ku dox sa diggante ak sa borom su fekkee ne bëgg nga loolu mu ne lu mën a nekk la tey tey minute bii nga may déglu su la neexee léegi léegi léegi yow jaam bi nga waxtaan ak yàlla te doo làcce mukk permission pour am audience doo soxla kenn it ku la ko hutatu ñu ne ko loolu nu mën a ne mu ne ko mu ne tusbiru du aka jotalal sam njàpp wa tadxulu mixraabaka duggal ci sa mixraab fa ida anta qad daxalta ala mawlaaka rek yaa ngi ci sa kanam borom dugg nga ci kër sa borom bi gayri idnin fa tukallimahu bi gayri turjumaan yàlla ngi lay dégg imaam ahmad daan na wax ne su ma bëggee yàlla wax ak man damay jaaw jël alxuraan jàng mu ne su ma bëggee wax ak yàlla nag ma jóg ma kabbar julli booy kabbar rek yaa ngi wax ak sa borom dara dàqul wax yàlla tabaraka wa taala ci xaalatu ridaa il xaqi tabaraka wa nga nga kontaan loo yàlla moo dàq téeméeri junne yoon nga kontaan yow te boo ko defee non seulement di nga kontaan waaye yaa ngi kontaan loo sa borom tabaraka wa taala moo tax góor ga ne buñ ma tànn loo woon diggante julli ñaari ràkk ak dem aljanna nee na ñaari rakka ma gën a laal janna ñaari rakka moo gën a laal janna nee na jën na maa cay kontaan waaye ñaari rakka yi yàlla cay kontaan te kontaantumaaw yàlla nag moo dàq wa ridwanun min allahi akbaru waaw du benn ah, waaw waaw julli moomu mooy audience bi yàlla di accordé jaam bi bu dee farata juróomi yoon ci bës bi nga am audience ak malikul mulooki tabaraka wa waaw ah, mu jara préparé nag waaw eh, nañu seet yonantu sallallahu alayhi wa sallam ni mu daan duggee ci audience boobu ndey Aïchatu nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafa daan waxtaan ak ñun ñu ñuy waxtaan ak moom waaw kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yuhaddithuna wa nuhaddithuhu ay yonentu ku ku fonkoon famille la waaw la góor ñooñu nga xam ne bu ñu génnee ci mbedd mi di reetaan bu ñu duggisee ci kër gi rekk nekk gaynde foog ne ñoo ca nekk fekk muus yi sax a leen tane waaw yonentu fa daan foog waa këram waaw di course ñoom di leen dimbale ci liggéeyu waañ bi di leen lu ne waaw def na ko sallallahu alayhi wa sallam daan na wax ne ku gën ci ki gën ci yéen mooy ki gën ci waa këram te maa gën ci sama waa kër sallallahu na waaye ànd ak loolu yépp fa ida xadarat lsalaatu fa kaannahu lam yacrif na wa lam nacrifhu bi azamati llahi azza wa nee na bu julli jotee fay mel ni mosut ñoo xam ñu nit mosuñ koo xam ndax soxlawoo gi muy soxlawoo màggug yàlla gi tabaraka wa taala su julli jotee rek dafa mel ni beneen muhammad ngay gis alayhi salaatu wassalaam na ma ngeen baal ma waaw ah, alayhi salaatu wassalaam <coughs> maanaa yonentu kenn war a ko sàllalu waaw ñu mm-hmm. jégalu baax ya rasulallah alayka salaatullahi wa loolu nag moo feeñ ci taalibeem yépp saxaabaam yi ak ña topp ci seen ginnaaw xoolal Seydina Ali rakkam ju baax ja bu julli jotaan danga koy gis yeta zëlzël wa yeta lëwwana wajo waaw da koy gis muy lox kanamam di am couleur di rougir di soppee ko waaw waaw bu ñu ko laajee lu xew yaa amiral muminina lu xew mu ne waxtu wi nga xam ne mooy waxtu amaanatu moo ñëw gan amaanatu amaanatu gi yàlla gaaraloon xasamaan yeeg suuf si ak doj yi ñu tiit ragal koo jël ndax responsabilité la responsabilité yi jox yàlla li mu moom muy taklif nga xam ne yàlla gaaral na ko lim bind yépp ñemewuñu man nit ma nangu nee na waxtu joxe loolu moo jot mooy julli boo xoolee doom ja seydna ali ibnul xuseyn doomi xuseynu doomi ali ibnu abi taalib moom lañ daan dàkkantele sajjaat su jot su jot su jootaakoon bi ndax bari lomoo su jot nee nañu moom bu jàppaan rek ci ngay gis kanam nga commencé jaune ko defee waa këram ne ko ma hada alladi yactarika inda alwudui li gaar ci jamono bi nga jàpp lan la mu ne atadruuna bayna yaday man uridu an aqum ndax xam ngeen ki ma war a taxaw ci kanamam kana subhanahu wa taala al eh, imam said attanuuxi rahmatullahi alayhi wax nañ ne doo ko gis muy julli lu dul ne rongañ yi dañuy fees lex yi ak sikkim ba mbokk yi nañuy jàng loolu di jooy jooylu buñ ko mënut sax nañ jooy jooylu waaw tashabbahu in lam takunu mithlahum inna bi rijali falaahu waaw di jooy jooylu ci julli dana jur ñu dem ba jooy gi di nekk di dëgg ci ñun waaw waaw waaw ndax boo boo soxlawoo loolu dana tax nga teew dana tax nga teew waaw tax nga teew te ibnu abbas nee na ñaari rakka yoo teew yu yem nga teew lu ca waaw di xalam sa borom tabaraka wa taala di xalam eh, kéemaani borom bi tabaraka wa taala nga am présence ci julli ga nee na moo gën nga fanaane julli te sa xol nekku fa waaw rakaataani muqtasidataani fii tafakkurin xayrun min qiyaami laylatin wal qalbu saahin waaw ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono ngi ñëw daa gis nit ñi di daje ci jàkk xam nga yonentu lu war a xew rek wax na ko saxaaba yi ne danañ toog rek picc romb ñu xam la ca yonentu bi wax la mu la picc picc yi di romb lan lañ ciy jàngee ndax yonentu waxoon na ko sallallahu alayhi wa ku fàttaliku fàttaliku na waaye li ko dalee ci jamono moom yonentu ba bi nit ñi di léemee tappi yowmal qiyaamati yi di dugg aljanna yàlla nañ ci bokk ak ñeneen di dugg safara yàlla la buñ ci bokk saxaaba yi nee na yonentu wax na leen li ciy xew lépp nag ku ko fàttaliku fàttaliku na ku ko fàttalikuwul fàttaliku lëf ci yiy xew mooy dinañ toll jamono bu nga xam ne daa fekk nit ñi ci jàkka ji ñu géew seeni géew fekk duñu waxtaane lu dul àdduna seen xol newu ca lu dul bëgg àdduna yonentu ne hey bu leen toogaaleeg ñooñu yàlla amul ci ñoom soxla laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah waaw moo tax lu mët bàyyi xel la ndaje moo dem fexeel ndaje ma yàlla aw fexeel ma ndaje ma saf yàlla waaye fexeel ndaje ma di ndajem yàlla même bu doon ndajem àdduna la waaw ndax yàlla loo ko tuddeewul rek moom reer boo ko woowul mu def ca suuf tabaraka wa taala boo defee boo boo xamee ci kanam kan nga taxaw doo yàkkamtee julli gi waaw léeg-léeg nga gis kuy julli doo xam sax ndax dafay julli walla dafa cob waaw waaw waaw doo xam ndax dafay julli wala ganaar guy cobal doomam yi pepp la waaw loolu yonentu mi ngi ko tuddee sàcc waaw te nee e, sàcc e, bu dee crime la te crime la nee na degré ba ca gën a rëy ci criminalité wu sàcc nee na mooy bi aji julli ji di def sàcc ci julli mooy the biggest crime of theft according to sayyidina rasulullahi sallallahu alayhi wa ñu ne ko yonantu nan la nit di sàccee ci julli mu ne mooy koo xam ne buy julli rukoo ya du mët su ya du mët te moo ne de bi amul ci jullim la dul la mu teewlu gis nga bu nit ki di julli di yàkkamti ba tax muy gàttal rukoo yeeg su jóot yeeg ya ca aju su ko déggeeg su ko déggul sama borom dana wax ak moom ne ko fan nga jëm yow sama jaam bi ana lu tax nga yàkkamti fan nga jëm yow sama jaam bi lu tax nga yàkkamti ila ayna ya abdi fan nga jëm ila man huwa afdalu minni ndax dangay wuti koo xam ne walla seeti koo xam ne moo ma ëpp moo ma gën maanaam looy wuti rekk yaa ngi taxaw ci kanam kim nekk ci loxoom looy yàkkamti waaw defee nga takk sa xol ba xusoo nekk ci te bu nee ci xol bi rek feeñ ci jëf yi waaw dafay jëf yi yaru nga xool fi nga sujjóot waaw yooyu dina la dimbale dina la dimbale dina la dimbale yàlla ñu yàlla boole dimbale waaw eh, eh, buñ lay nettali ñi jiitu woon seen doxalin ak seen présence doo ko mën gëm mukk waaw doo ko mën gëm mukk wax nañ ne xalaf ibn ayub xalaf ibn ayub Eh, dafay julli zambuur matt ko ba deret ji yool ba nit yi di wut ndox di ko raxasal yéreem ndax deret ju bari ji nekk ci yére bi ak di ko fompal fi deret ji di yool waaye moom yëgu ko yow mu pare ibnu saïd wax ko ko ne ko kon li xew yëpp ñu lay fompal di la raxasal yëguloo ko mu ne ay yashcuru bi mithli hada man yakunu waaqifan bayna yaday maliki bayna yaday lmaliki ljabbaari mu ne ndax ku taxaw ci kanam buur bu tol ni yàlla dinga yëg lu mel ni ku taxaw ci kanam buur bu màgg ni yàlla wa malakul mawti ala qaba nekk ci sa ndong à tout mën na jël sa ruux wannu wannaaru ala chimali safara nekk ci càmm càmmoñu ki taxaw ci kanam boromam erreur bu mu def musiba bu mu def mën ko fa tàbbal ñàkk gu mu ñàkk matal julli gi mën ko tàbbal ci safara was siraatu taxta qadamay siraat nekk ci suufu ndëgoom mu war caa jaar jàll dem aljana walla musura safara wal iyaadu billahi ndax ku nekk ci situation bi dina xalaat dina yëg dina yëg eh, lu ko mat nday jaar nay jiit ah. ñu ne ñu ne eh, góor ga amr ba loxo ba yàqoo te fekk eh, insectes yi la ñoo ko infecté ba yëf yi dem ba toll foo xam ne dañu war a dagg loxo bi docteur yi ne ko ah, fokk ñu yeew la parce que booba garab yi li nga xam ne dañ la koy nàndal doo yëg mettit amut mu ne déedéet bàyyi leen ba muy julli ngeen dagg ko waaw dagg nañu loxo bi ba defer ko ci biir julli gi bi mu sëlmalee la soog a yëg na dagg nañ loxo bi ki toll foofu yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na ki am xudur ci julleem euh, euh, euh, te xadis ba naka la tuddati ku julli ñaari rakaa sa xol yépp nga jox ko yàlla nee na daa génn ci sa bàkkaar comme bés bi la sa yaay jure waaw comme ah, imaam Xasali tudd na ko ci mukaasam wax na it ne amul benn jaam buy jàpp rafetal njàpp la julli ñaari ràkk xolam ak jëmmam yépp mu jox ko yàlla lu dul ne aljanna ñeel na ko xadis jàng muslim yooyu nag mbokk yi ci taxawal julli la bokk waaye dafa am boo xam ne ñu bari ci ñun dañ koy sàggane ci taxawal julli mooy defe ko ci mbooloo te defe ko ci jàkka ñu bari ci ñun daanaka àjjuma ak àjjuma la ñuy dem jàkk wala très rarement te jàkk mooy néegu yàlla mooy kër yàlla te dafa soxla ñu ko dëkkee te nee na ñi ma gëm rek ñooy dëkkee jàkk innama yaamuru masajid allahi man amana billah kër yàlla dafa soxla ñu ko dëkkee ndax kër bu ko kenn dëkkeewul ci ràpp la jëm waaw te bu la yàlla gënalee sa bopp waruloon nangu kër yàlla ràpp sa kër ya xees yow yonentu sallallahu alayhi wa nee na bu ngeen gisee waay mu baaxoo jàkka ne bu ngeen di wut jullit jàpp leen ida raaytumul masjid ida raaytumul mar'a yataadul masjida fashhadu lahu bil iman ku ngeen gis mu baaxoo dem jàkk nee na ngeen ko seedeel ngëm yàlla te ngëm yàlla nag ah mooy condition ci jëf ju ñuy def ñu nangu ko Mm-hmm. man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mumin waaw wa huwa mumin mooy condition ba kooku de fa la nuxiyannahu xayatan tayiba waaw wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kaanu yacmaluun yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ci jeneen xadis ne bashiri lmashaa'ina fi zulami ila almasajidi bi nuuri tammi yowma alqiyamati ñi nga xam ne guddi ak lëndëm du leen tere dem jàkka nee na nanga leen bégalee leer gu mat sëkk yowmal qiyaamati te mbokk yi ñu bari ci ñun am nañu jumtuwaay yu ñu mën a demee jàkka ba duñ e, jaar ci lëndëm yonentu ci jamonoom saxaaba yi dañ daan doxee barab yu bari sori am na ci ñoo xam ne sax duñ gis seen yet lañuy góor góorgóorloo ba yegg si ci jàkka ji ànd ak e, jafe-jafe yooyu yëpp ñun nag tey am nañuy oto am nañu am nañu am nañu tabaarakallahu te yowmal qiyaamati nag ah fa leer de amee njëriñ waaw waaw ah, at mim la naa nuura na yowmal qiyaamati la waaw defee képp koo xam ne eh, ngëmam demeewuloon noonu ba moytuwut la muy am ci leer du ko mën a leeral waaw yonentu wax na ko am na koo xam ne leeram dafay mel ni polu baaraam rek koo xam ne leeram dafay toll ni taxawaayu nit am na koo xam ne leeram dafa toll ni montagne yi am na koo xam ne am na ñoo xam ne du ñu am dara ci leer waaw am na ñoo xam ne dañuy gis leer buñ demee ba buñ demee ba bëgg a dox leer ga dem ba naa naafeq yi waaye defee na ñuy woo julli di naan leen alam nakum maakum xanaa du noog yéen a doon ànd di jullee ko woor xalu bala walakin fatantum anfusakum waaw waaw waaye da ngeen a da naa a war seen bopp waaw fatantum anfusakum yéen a fitnaal seen bopp waaw li ngeen doon wax du dëgg ci yéen da ngeen àndoon ak ñun ciy biti rek fekk amoon ngeen yeneen i but ak yeneen i waaw waaw yeneen i objectif yal nañ ci yàlla boole musa yal yàlla may ngëm gu mat sëkk ci àdduna may ñu leer gu mët sëkk ca àllaaxira te nag dem jàkk def ciy dimbale jaam ni ko yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam waxee yonentu nee na képp koo xam ne dana xëy dem jàkka gont dem jàkka na xam ne saa yu xëyee wala mu gont dem jàkka yàlla préparel na ko ngan yowmal xiyaama ngan laa wax de waaw yàlla mu la préparel ngan aljanna aljanna lu muy neex-neex bu cee yàlla bokkut neexut waaye yàlla mu ne tey nag diw sàngam moom laa invité moom lay defal nuzul waaw man gada ila al masjidi aw raaxa aadda allahu lahu nuzulan fi ljannati kullama gada aw raax loolu mooy ku takkoo jàkk xamal ne bés bu nekk am nga droit ci nganu yàlla tabaraka wa taala yàlla invité la ndeysaan seetal loolu seet li nga gën a bëgg mu defal la ko wata feeva yan nañ ci yàlla boole defal barki yonent bi sallallahu alayhi waa jàkka dafa rëy rëy ba yonentu sallallahu alayhi wax na ne gis nga yowmal xiyaamati ni jant bi di jege ba nit yi seen yuur yi di baax ndax tàngaay di ñaq ba ñaq wi nekk géej ci ñoom nee na am na ñu nga xam ne duñ ko yëkk kenn ci ñooñu kët mooy koo xam ne xolam dafa attaché wu ci jàkka ji waaw wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajidi koo xam ne fu mu toll xolam a ngi ca jàkk ca su jullee yàkkamte ne julli jotaat bam mu dellu ca jàkk ca business du ko téye fii buyutin adina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wala saali rijal rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dicrillah yàlla nee na maa ngi gis ay góor ci marché bi business neexeewut ko marché neexeewut ko ba waxtu julli jot te duñ ko fa bàyyi dem julli ci seetal loolu waxul dem julli ji de duñ ko fa bàyyi dem julli ji ca jàkka ja waaw waaw fii buyutin adina allahu an turfaa fii buyutin adina allahu an turfaa wa yudkara fiha smuhu yusabbihu lahu fiha bilguduwi wala saali rijalun la tulhihim tijaratun wala bayun an dikrillahi wa iqami alsalati wa itaai alzakati yaxaafuuna yowman tataqallabu fihi alqulubu wal absaar li ci seen kanam lañu bàyyi xel moo tax waaw waaw waaw ibnu mas'ud daan wax ni képp koo xam ne bëgg nga dajeek yàlla ëllëg fekk yaa ngi di ab jullit ne na nga fonk julli juróom saa yuñ ko xootee mën a ko mu ne yàlla <clears throat> dafa yoonalal yonentu bi sallallahu alayhi wa ay yooni njub te julli juróom yii dafa bokk ci yooni njub yooye bu ñu wootee julli juróom yi ngeen wuyu ji ca jàkk ya dafa bokk ci yoonu njub mu ne gis nga su ngeen julli woon ci seen néeg yi ni nga xamee ne al kiy kii wuute jàkka noonu la jullee ci néegam ngeen sàggane te ngeen bàyyi seen sunna yonant man sarrahu an yalqa allaha gadan musliman fal yuxaafid ala hadihi salawaati alxams xiina yunaada bihinna fa inna allaha sharaca li nabiyikum sunan alhuda wa innahunna min sunan alhuda walaw sallaytum fi buyutikum kama yusalli almutaxallifu fi baytihi la taraktum sunnata nabiyikum su ngeen jullee ci seen néeg yi ni ko ñiy wuutee jàkka maanaam ñiy absente duñ dem jàkka di ko defe kon ngeen bàyyi sunnaay seen yonant walaw taraktum sunnata nabiyikum te bu ngeen bàyyee seen sunnaay yonantu la dalaltum ngeen réer mu ne walaqad raaytunaa wa maa yataxallafu anha ay an salaati fi lmasjidi illa munaafiqun mu ne ñun de jàpp nañ ñun saxaaba yi yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne amul kenn kuy wuutee jàkka ba du fa julli farata julli farata amul kenn ku koy wuutee julli ca jàkka ja maanaam ñu nodd ca jàkka ja ñu dem julli ji kenn du bañ a ñëw lu dul ab naafiq mu ne ab naafiq maalumun nifaaq koo xam ne naafiqam lu wóor la rek mooy toog ñu woote jàkka ja mu toog këram mu ne wa innahu la yati bir rajuli wa innahu la yu'ta waaw la yu'ta bir rajuli yuhaada bayna rajulayni xatta fi saf ne daa nga gis ci saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa sallama ku feebar ba du mën a indi boppam walla mu màgget ba du mën a indi boppam nga gis ko mu teg ñaari loxoom mi ci ñaari mbagg waay kii di ko dimbale ci wàll gi kii di ko dimbale ci wàll gële ñu di ko watat walla ñu di ko indi di ko dimbale ba mu yegg si ci jàkk ji taxaw ci sàppe si ndax xër xam nga kooku am na ngànt mu ne waaye ñoom dañoo gisoon ne julli ci mbooloo mooy wane ne borom jullit piir la bàyyee julli ci mbooloo toog yow kot mooy wane ne boroom leneen la looloo tax saxaaba yi ak ñañu jàngal fonkoon julli mbooloo benn mag ci mag ñu baax ñi wax na ne ñeent fukki at passé ci sama dund ñeent fukki at yi passé ci sama dund nodd mosuma fekk ci biti jàkk ci mooy mosuma toog bañ nodd lu dul ne balaa ñoo nodd maanaam mosuma toog bañ noddu may soog a dem jàkk saa yu ñuy nodd rek fekk maa ngi ci biir jàkk ci xadis ja nee na man salla lillahi arbaina yowman fi jamaatin yudriku takbirata al kutiba lahu baraatan baraatum min annaari wa baraatum min annifaq gis ngeen mbokk yi julli ci mbooloo ni maamee solo koo xam ne ñeen fukki fan yu toftaloo yaa ngi koy jullee ci jàkka ja ci mbooloo ma te takbiratul ihram bi du la raw nee na doomatal ñeen fukki fan yi lu dul ñu bindal la ñaari ñaari euh, certificat ñaari diplôme ñaari këyit yoo xam ne li muy wane bii liñ ciy bind mooy diw sàng mii turam dëñ na ci safara safara du ko lakk mukk ñaareel ba diw sàngam mii ku set la ci naafeq amul dara ci nifaq waaye defee nga xam ne ñeent fukki guddi ñeent fukki fan ku ko tàggatu ci dara miin nga waaw miin nga miin nga nag miin nga moo tax salaf bu leen takbiratul ihram rawee dañ leen daan jaale waaw dañuy mel ni ku ñàkk kiñ gën a bëgg ci àdduna dañ leen di jaale ndax kabar bu njëkk raw na leen waaw waaw julli mbooloo ci jàkk yi yépp nag li muy diis diis ci ab naafeq yonentu sallallahu alayhi wa sallam bi ci gën diis ci naafeq yi mooy gée ba ca topp mooy fajar mu ne moo ne de suñ xamoon li ci jullee gee ak fajar ci jàkka ja danañ dikkal gee ak fajar ci jàkka ja donte sax dañuy raxm walaw yaalamuuna ma fihima la atawhuma walaw xabwan yonentu sallallahu alayhi wa mu ne doon naa xalaat sax digal kenn mu jiite mbooloo mi ci jàkka ji ma génn ànd ak ay waay yu ma dimbale ñu defal ma ay matt ci kër yi ñi nga xam ne duñ julli si ma taal leen benn yoon lakk leen ndax ñooñ looloo gën ci ñoom xadis jàng ci Buxaari yoog muslim yonentu li mu bëree yërmande waaye nee na ñi dul julli si loolu daal rekk jaadu ci ñoom loolu xadis bu raglu la ci e, ñun ñëpp mbokk yi ñu bàyyi ci xel ba di e, góorgóorlu luñ mën di dem ci jàkk yàlla yi di fa jooxe julli góor ak jigéen nag waaw ndax léeg-léeg ñu ne la jigéen góor julli ci biir këram moo gën waaw waaye nag jamono fi mu toll jamono fi mu toll miinal sa bopp jàkk dafa dafa am solo te yonent bi kët moo ne jéebéeru yàlla yi bu leen leen tere jàkk yàlla yi waaw jaamu yàlla yi jigéen yi bu leen leen jàkk yàlla biñ daan ragal jigéen di dem jàkk sécurité moo taxoon ak fitna te tey jàkk joo dem am na séparation fu jigéen ñi jullee ak fu góor ñi di jullee waaw te loolu jàkka yonent bi amut ko woon waaw jigéen ñi góor ñi daan ne ci kanam jigéen ñi ne ci ginnaaw terewul mu ne bu leen leen tere jàkk yi kon nag ngàntaamut rawatina nag góor ñi tabaarakallaahu <clears throat> ndax dem jàkka jullee fa julli juróom am na boroom xam-xam yu ko def waajib sax jàngoon nañ waajib maanaam man ak yéen waaw am na borom xam-xam yoo xam ne farata lañ ko def waaw donte tabarkal la waaw am na solo e, fi ñu tëjee xutba ji moo doon xadiisu Seydina Abu Hurayra mu nettali jëlee ci yonantu sallallahu alayhi wa muy compare jullik kenn ak jullik mbooloo ci jàkk ci yonentu dafa wax ne salaatu rajuli fi jamaatin taziidu ala salaatihi fi suuqihi wa baytihi bid'an wa ishrina darajatan jullik waaye ci mbooloo ëpp na ñaar fukki darajaak nangam ëppee na ko julli gu di julli ca marché ba walla ca këram am na xadis bu mu tuddee ñaar fukk ak juróom ci daraja am na xadis bu mu tuddee ñaar fukk ak juróom waaye fii ñaar fukk ak nangam la mu ne lu waral loolu wa dalika anna axadahum ida tawaddaa fa axsana alwudu mu ne bu kenn ci jullit yi jàppee njàpp lu rafet humma atal masjida topp mu dem jàkka ja mu dikk ci jàkka ja laa yanhasuhu illa salaa dara yëgatihut ko lu dul julli laa yuridu illa salaa bëggut dara maanaam dara taxut mu jog illa salaa lu dul julli mu ne waa jooju lam yaxtu xutwatan illa rufia lahu biha daraja amul benn jéego gu muy seq lu dul ñu yëgatil ko ca daraja wa xutta anhu biha xatia amul jéego benn bu muy seq lu dul ñu sippil ko ca bàkkaar xatta yadxula al masjida ba ba muy dugg jàkka ja fa ida daxala al masjida su tàbbee ca jàkka ja kaana fi salaa nekk na ci julli maa kaanati salaatu hiya taxbisuhu féeg ma nga ca jàkka ja di xaar julli jot mu julli ñëw nga ci jàkka ji midi te une heure lañ war a julli tisbaar wala une heure demi temps bi fa def di xaar julli yëpp yaa ngi ci julli mu ne wal malaikatu yusalluuna ala ahadikum maadaama fi majlisihi malaaka yi dañuy julli ci kenn ci yéen féeg mu ngi ci barabam alladi salla fihi barab bi nga jullee tànk yaa nga fa ci jàkka ji barab ba nga jullee tànk yaa nga fa malaaka yaa ngi lay ñaanal naan allahumma arhamhu yàlla yal na nga yërëm jaam bi allahumma agfir lahu yàlla yal na nga ko baal allahumma tub alayhi yàlla yal na nga nangul tuub maa lam yudi waaleykum salaam maa lam yudi fiihi feeg loru ca maa lam yuxdis fiihi feeg xewalul dara lu dàquwanteeg jàkka ja ca jàkka ja xadis ji xadis juñ wa hada lafdu muslimin lii mooy version imam muslim tabarakallahu yegg si nañ fu ñuy yëgatee jotaay bi ñu ngi gërëm suñu mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy topp yëpp tey nag dañuy ah, jagleel nuyoo suñu lëkkale aja Ayda Ayda Njaay ca Houston ak xaritam Cherif Mouhamadou Lamine Cherif Mouhamadou Lamine Haydara suñu soppe suñu xarit eh, tabarakallahu ak suñu eh, mbokk yi nga xam ne ñu ngi déglu yëpp fi mashariqil ardi wa magharibiha ñu ñaan yàlla lépp lu ci jub mu nangu ko lépp lu ci dëng mu eh, soppil ñu ko defal ñu ko njub te taxawuñu ci zaahir taxawuñu ci baatin di nuyu tamit suñu nejaay góor gi Tamsir Dramé ak eh, sëriñ Abdou Fall Dammel sëriñ Abdou Fall Dammel ak sama jigéen Adja Ndey Fatou Diop moom xam nga Cheikh Tidiane moo ñu boole radiyallahu anhu ak soxna Saafura soxna Saafura Taal Makki di suñu jigéen ak seexam soxna umu si jamil du suñu eh, jigéen tabarkalla tabarkalla na yàlla yombal yëpp wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu علي ملاذ الناس في دين ودنيا بذول دون من بالنوالي شجاع في اختياد واغتنام إلى الإسلام